sëriñ ibrahima jóob jat mi sëriñ ibrahima jóob jat mi mi ngi gane àdduna ci atum 1927 ci dëkk boobu di jat mi jóob nekk ci wetu dëkk bi di daaru muxti doomu soxna binta jaw la ak sëriñ daawuda jóob jat mi moom sëriñ ibrahima jóob jat mi bi mu ganee àdduna ci atum waa waajuram wa sëriñ daawuda jóob jat mi moo ko fopp tudde ko sëriñ ibrahima jóob almashariyu bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim kon sëriñ ibrahima jóob sëriñ ibrahima jóob almashariyu lañ ko tuddee ndax kat waajuróom wa sëriñ daawuda jóob jat mi wól la réew sëriñ ibrahima jóob almasar yu la woon moo tax bi ñaareelu doomu bi ganee àdduna mu duppee ko ko sëriñ ibrahima jóob jat mi mi am na ko mbokkal waajur wu jigéen di soxna bintu jaw muy taawub sëriñ daawuda jóob ma ñu ko daa wax sëriñ cheikh jigal jóob sëriñ cheikh jigal jóob mii sax sëriñ moodu jigal bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la ko waajuróom wa duppee kon kenn rek ci mbooleem njabootu sëriñ daawuda cat mi mu foboon sëriñ cheikh jigal mi ab taawam jébbal ko kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke foboon ñaareelu doomam bii di sëriñ ibrahima jóob jat mi jébbal ko kii di cheikh mamadul faadal mbàkke bi matee dal jàng moom sëriñ ibrahima jóob jat mi waajuróomam wa di sëriñ daawuda jóob ci loxoy cheikh mamadou lamin baara mbàkke la ko teg cheikh mamadou lamin baara mbàkke ci dëkk bii la ko yóbbu woon foofu sax la nekk di jàng lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag cheikh mamadou lamin baara mbàkke jëleen na leen mbaraakan moom magam ja sëriñ cheikh jigal jébbal leen cheikh mamadul moustapha Mbacke Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo wéel seenum njàng ba ni fa seen waajur wi bàyyi ko ci atum 1939 ñu ñibbisi waat nag ngir ñëw yor seen donal waajur wa moom magam ja Serigne Cheikh Diop jat mi ginnaaw bi nag bàyyi ko na ci dëkk boobu di jat mi ñëw jébbal boppam Cheikh Mamadul Faadal Mbacke Cheikh Mamadul Faadal nag moo eggale lii di am njàngam ba lii di xam-xam sax foofu la ko jànge ci loxo loxoy Cheikh Mamadul Faadal Mbacke moom Serigne Ibrahima Diop almasar yu ñu gën koo xam ci Serigne Ibrahima Diop jat mi kon jàng moom sëriñ ibrahima jóob almasariyu ñu gën koo xam ci sëriñ ibrahima jóob jat mi seen waajur wa sëriñ daawuda jóob nekk jat mi di liggéey ba nim génnee àdduna ci atum 1939 bi seen waajur wi di génn àdduna nag mook magam ji sëriñ cheikh jóob jat mi ñu ngi ci loxoy cheikh mamadul moustapha mbàkke ginnaaw bi seen waajur wi génnee àdduna nag la leen cheikh mamadou moustapha mbàkke delloo waat ca jat mi ngir ñu wéyal ndonal sëriñ daawuda jóob kon lii moo leen jëlee ci loxoy cheikh mamadul moustapha mbàkke ci atum 1939 foofu lañ nekk di alxuraan ak xam-xam ba ni seen waajur wi génne àdduna di sëriñ Daawuda Jóob jat mi ci 1939 ñu jële waat leen foofu yóbbu leen jat mi ndax boobakat ñoom ñoo yor ndonal sëriñ Daawuda Jóob jat mi mii nekk na foofu ab diir ci ginnaaw magam ji sëriñ Cheikh Jóob jat mi ginnaaw jat mi boobu sëriñ Ibrahima Jóob jóge na fa nag ne day dem jaayante ku baax ki Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke keroog ba muy dem mu ngi ci waxtaanu ku ñuy wax sëriñ Moodu Njaay sëriñ Moodu Njaay sax jamono ji mi ngi ci dëkk bu ñuy wax njóobeen dimb njóobeen dimb gi sax mi ngi ci wetu dëkkub cosaanuk sëriñ daawuda jóob mii di xarañ jóg ngir di ko xamal ne xam naa ne sama waajur wi soxna bintu jaw ak sama mag ji di sëriñ cheikh jigal bu ñu ma yëgee duma mën a dem waaye nanga bàyyi suñ demee ba mu leer na egg naa ci cheikh dul faadal mbàkke nga doog leen koo wax keroog bi sëriñ ibrahima jóob jat mi jógee ci dëkk boobu di jat mi war a dem fekki mu dul faadal mbàkke ci tuubaa dëkk bi di daaru muxti la jaare keroog bam fa eggee fekk na fa rakki waajuram wi di sëriñ mbay aada jóob ndax sëriñ mbay aada waajuru jigéen ak waajuru góor mu laaj ko lan moo nekkoon say tànk mu di ko xamal ne dama bëgg liggéey li suñu boroom la ko ci ki ma sama baay joxoon muy mu dul Fadal Mbàkke ngir ma mën a am ngërëm yi ngeen am keroog sëriñ Mbay Aadam yi sax moo gunge sëriñ Ibrahima Diop ba ci mu dul Fadal Mbàkke mu jébbal ko ko ginnaaw bi nag lañ mujj sonal sëriñ Moodu Njaay mi ndax kat booba mook Cheikh Ibrahima Diop ñoo daa bokk benn lal bu ñuy fanaan mu ne moom gisul Cheikh Ibrahima Diop biñ demee nag ba mu wér na ko ne jëm na ci cheikh mamadul faadal mbàkke ndax nee na day jaayante ji soxna bintu jaw mi waajuram solu dàllam ñëw ci cheikh dul faadal mbàkke di ko xamal ne seen waajur wa de sëriñ daawuda jóob jat mi da leen fee bàyyi te ñoom ñaar ay tuut tànk la te magam jeedu sëriñ cheikh jégalkat munul dara ca njaboot ga kon sëñ ibrahima jóob mi moo waroon a nekk ci ginnaawam di ko laddanti ñu bokk ànd taxawu njabootu sëriñ daawuda jóob jat mi bi cheikh mamadul faadal di ko wax ne moom de lii la bëgg kon bakko mu am lii di ngërëmam te boo demee nga wax sëriñ cheikh jigal moom muy magam mu yokk njëlam te ubbi ay buntam te na xam ne xéewalug sëriñ tuubaa seexul xaddiim dana ko fa fekk te seexul xaddiim dana ko taxawu soxna bind binta jaw ñëwaat ci dëkk bi di jat mi jóg miy nekk jat mi jóg keroog bi mu ñëwee jaayante ci cheikh mamadul faadal mbàkke ba noppi indaale woon na fa ab lettre ngir di ko jébbal boppam di ko wax si lan la soxla moom sëriñ ibrahima jóob jat mi ñu teewlu lettre bi mu bindoon cheikh mamadul faddal mbàkke bi muy jaayante si asalaamaaleykum yaa cheikh alhaaji muhammadul fadl jublu Mbàkke man Ibrahima Diop maa lay siyaar ñaan ngërëmul yàlla ak yonente bi ak sëriñ Touba ak xaajo ju faju ak wattuk alquran ak sax ci ndigal faw bàyyi lu ñu tere faw ba bàyyi faatu ak fan wu gudd ak wér ak tiraanga ju sax Mbàkke yow yaay tawatukaay bi lii mooy sama soxla nga dimbale ma ci ak kullu murid boo xam ne sukk na jébbalu wassalaamu aleykum wa lool moo nekkoon lettre jaayante bi sëriñ ibrahima Diop wiy nekk ci loxoy cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke tuubaa aliye lu ko yóbbu woon ngir mu nekk fay muritu boole woon ko jëruñ ji ñuy wax sëriñ daam Diop ginnaaw tuubaa aliye yóbbu waat na ko ci dëkk bu ñuy wax tuubaa boko tuubaa boko googu sax la nekk ba jotee fa lii di ngërëm ndax foofakat la ko cheikh dul faadal taxawale lii di kër boole ko ku ñuy wax soxna ami kan ngir mu dëkkoo ko cheikh dul faadal mbàkke gërëm na ko lu tollook ñett yoon waaye bu ne rek sëriñ sëriñ Ibrahima Diop toog fa ne day gën a liggéeyal lii di suñu boroom ba ni Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke génne àdduna ci atum 1968 sëriñ Modou Moustapha Mbàkke Fàllilu toog toogaayu Cheikh dul Fadal Mbàkke ci la wooyee nag kii di Cheikh Ibrahima Diop di ko wax ne man ngaa delluwaat ca njaboot ga ndax kat li nga doon sàkku ci Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke jot nga ko mu jóge nag ci dëkk boobu di Touba Bogo ngir ñëwaat nag ci dëkk bii di Touba jaar na ci Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mi toogoon toogaayu Xaadim Rasul di ko wax ne Cheikh Mamadou faadal de laa doon liggéeyal waaye jot naa lii di ngërëmam sëriñ du Moustapha Mbacke Falilu xamal na ma ne lépp lu ma soxla woon ci cheikh dul Faadal Mbacke jot naa ci cheikh Abdoul Ahad Mbacke waat na ko moom cheikh Ibrahima Diop ci lu tolloog weer ak fukki fan ak juróom ngir di ko liggéeyloo waat ngir mu mën a am nag ngërëmul xaadim rasul mu wéy des jat mi di liggéey lu mu am yit cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Falilu ak kii di cheikh Abdoul Ahad Mbacke fop magam ja nag di ko xoole sëriñ Daouda Diop jat mi muy sëriñ cheikh Diop jat mi ba ni cheikh abdul axat wootee tuuba ne kat yowmal xiyaam koo xam ni bëgg nga bu ëllëgee sa pujum néeg seede ne murit nga wutsil tuubaa kër mu bàyyi ko jaat mi jóob nag ngir ñëw wut si kër lii di tuuba gedee la amoon lii di kër ci wetu corniche bi nekk fa su masaa ñëw tuuba nag ci lu ko jiitu kër magam mbal di kër suñuy cheikh jóob jaat mi foofu la daa dal bi cheikh abdul axat mbàkke wootee wax wax jooju nag mu wutoon na kër lii di gedee ginnaaw bi nag la ñëw ci cheikh abdul axat mbàkke mu di ko wax ne ana waa kër gi nekk ci Touba la bàyyi ko Cheikh Abdoul Ahad di ko laaj kër gi fan la toll mu di ko wax ci corniche gede bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko wax ne su ma sañoon daal nga féete ma ci wetuk ndeyjoor gi muy fii jàkkay muuma nekk jamono ji kër googu nga xam ne ni moom la Cheikh Ibrahima Diop amoon ci corniche gede bi moom la may jar baatam bu ñuy wax góor a Diagne mu dëkke foofu Cheikh Abdoul Ahad jox ko fa suuf këram googu mu nekk ak pincam moomu mu tabax fa lii di jàkka jàkka jooju nekk mbaar moomu sax mbaarum alxuraan la ko tudde woon ndax xew-xew yi di am tuubaakat lu ci bari daan nañ wàcce foofa ca mbaar ma lii di ay kaamilu alxuraan ba ci bis bii di bisub latul xadar bu soxna may Maymunatu Mbàkke bintu seexul xaddiim ak yeneen bis yu bare bari ci tuubaa gi kon mbaarum alxuraan lañ ko tudde woon foofu ci tuubaa tawféex di jàkkay muuma foofa tawféex lañ ko tudde waaye rek ñu bari jàkkay muuma lañ ko gën a miine ndax kër gi féete penku jàkka ji dafa am benn muuma wax muudu abdulaay muudu abdulaay moomu nag ñu bari muuma rek lañ ko doon woowe muudu abdulaay moomu nag lim daa toog ci jàkka ji moo bari lool ba nit ñi daal mii noon ko fi daa wax jàkka ja muuma jay toog ñu dem ba mu yàgg rekk ñu moomale jàkka ja muuma ji di wax jàkka yi muuma waaye lii rek moo indi jàkka yi muuma waaye suuf soosu moom tawféex la tudd sëriñ ibrahima jóob jat mi mii moo fa def jàkka ja cheikh abdul ahad mbàkke moo ko fa dël joxoon na ko ndigal mu delluwaat dëkk boobu di daaru xarañ ngir nekk fa ndax kat doomu sëriñ mbay aada bi ñu waxoon sëriñ mustapha jóob bi mu génnee lii di àdduna njaboot gi mu fi bàyyi woon ay tuut tànk la sëriñ abdou lahad mbàkke di ko wax mu dem fa taxawu lii di njaboot ga ba ñu dëgër moo tax sëriñ ibrahima jóob ginnaaw bi jóge waat na fi tuubaa jóge waat fi jat mi dem daaru xarañ nekk fa ci ndigalul cheikh abdou lahad mbàkke ci yoon woow itam cheikh abdou lahad mbàkke bindoon na ko lettre di ko wax ne mboolem tund woowu murit laaj lii di ndigal kon nekkoon na représentant de murit ci tund woowu di daaru xarañ toogal fa xalifa général des mourides di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ginnaaw buñ nekkee Touba xarañ googu ba liggéey fa ab liggéey doon ko yit kii di Cheikh Abdoul Ahad Mbacke addiya Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam delloo waatoon na leen ab lettre di leen wax ne lañu liggéey ba indil ko ko jot na ca ñu teewlu lettre bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bindoon sëriñ Ibrahima Diop jat mi jaarale ko ci daayira boobu nekk foofu ci Touba mi te moom représenté ko fa ci mboolem murit yépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen waa daaira Tuubaa xarañ ak njoobeen dimbu ak dallax ak mboolem dëkk yi ko yépp maa ngi leen di nuyu lu bari lool di leen sant lu bari lool di leen gërëm lu bari lool ci seen pësteef ak seen taxawaay bu rafet ci wàllu taalibe gi di leen xamal ne Serigne Ibrahima Diop ak mboolem ñi mu àndal indi nañu fi seenu toolu àllarba muy dugg toll ci cinq cent cinquante jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati yàlla na ngeen ko fi yàgg indi yàgg na fee fekk saa su ne ak bis bu ne ak weer wu ne ak xat mu ne ngeen di ko fi gën a man yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla barkeelal seeni liggéey wasalaamu aleykum bi xurmati cheikhul xadim alayhi ridwanullahi baahil xadim wasalaamu aleykum kullihima wa rahmatullahi wa barakatuhu cheikh abdul ahad mbàkke bi mu nekkee foofu ci daaru xarañ ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke liggéey yooyu lañ doon def di ko yit sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke ngërëm loolu itam la leen cheikh abdul ahad mbàkke gërëmoon ci addiye yuñ ko doon yit mu des xarañ jóob ba ndigal loolu ko fi cheikh abdul ahad mbàkke joxoon mat mu ñibbisiwaat ci dëkk bii di tuubaa boole koog nag nekk ci dëkk bii di jat mi sëriñ ibrahima jóob léppam cheikh mamadul fa faadal mbàkke la moo tax ki toogoon toogaayu cheikh mamadul faadal mbàkke moo nekkoon yaakaaram di sëriñ muudu mustapha mbàkke fàllilu ci atum 1990 bi cheikh abdou xaadir mbàkke toogee xalifa général des mourides am na liggéey bu mu doon def loo sëriñ mustapha mbàkke fàllilu ci dëkkam boobu di tuubaa baxdaat kii di sëriñ muudu mustapha mbàkke fàllilu nag joxoon na aw sasam kii di sëriñ ibrahima jóob jatni di ko wax ne balaa la 15 janvier de ci at moom di na matal lii di sasam ñu teewlu lettre bi ko sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilu joxoon di ko laaj sasam ci kër sëriñ Mouhamadul Fadal Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yow Ibrahima Diop maa lay nuyu lu bari man alhaaji Mouhamadul Moustapha Fadilu Mbacke di la sant di la gërëm di la ñaanal di la xamal ne dafa xam liggéey bu ma sëriñ Abdul Xaadir Mbacke sant fa Baxdaad ñu war ko ko liggéeyal na mu ko bëgge moo waral ma jox la ndigal nga joxe sa ko joxe ko balaa la quinze janvier mille neuf cent quatre-vingt-dix jërë ngeen jëf addiye yooyu kii di sëriñ Ibrahima Diop joxe na ko bindaatoon na lettre kii di sëriñ Modou Moustapha Mbacke Fallou di ko wax ne matal naa sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke sëriñ Ibrahima Diop itam faboon na léppam jox ko ko di ko liggéeyal di ko xoole lii di Xaadim Rasool quartier boobu mu nekk di Touba Tawféex ñu gën koo miin jàkk jàkkay muuma daayira ba fa nekk faboon nañ seeni addiya jaare la ko ci sëriñ Ibrahima Diop ñu dem ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ngir jébbal sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke doon na leen wax ne jot na ca addiye ya bindub lettre ngir di leen ca sant di leen ca gërëm ñu teewlu lettre bi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke bindoon cheikh ibrahima Diop di ko wax ni addiye yi jot naa ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen waa daairatu tuubaa tawfeex jàkkay muuma noo ngi leen di nuyu te di leen yëgal ne sëriñ ibrahima Diop ak ñi mu xàndal andi nañu fi seenub liggéey mu toll ci ñaar fukki junni koo jëf yàgg na fee fekk sëriñ Tuubaa ñi tax ngeen di ko jëf nangul leen ko te yàlla may leen ak mucc ak yokk te dolli leen xéewal fii ak fa ñu jëm te ñin di jeexi sayful xaddim kii di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke bi mu toogee xalifa général des Mourides toog toogaayu xaadim rasul sëriñ Ibrahima Diop jat mi àndoon nag waa quartier boobu di taw feex ñu gën koo xam ci jàkkay muuma ngir doon indi ay addiya yuñ jagleel kii di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbàkke mbàkke bindaatoon na leen ab lettre di leen wax ne jot na ci te ki tax ñuy liggéey muy sëriñ tubaa seexul xaddiim yàlla na leen fay ñu teewlu lettre ba assalaamu aleykum wa rahmatullahi yéen waa daahiratu tawfeex jàkkay muuma maa ngi leen di nuyu lu bari di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet di leen xamal ne sëriñ ibrahima Diop ak ñi mu xàndal andi nañu fi seenu liggéey mu toll ci ñaar fukki junni ak ñeent may ñaan ngeen yàgg ko jë xandi sëriñ bi nangu te nu xam jàmm ju ànd ak wér ak xeewal sunu xaaju yépp aju tey ak ëllëg ci barkeb sëriñ Tuuba ñu tax ngeen di ko jëf jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu foofu ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke doyaloon di Touba Tawféex ñu gën koo xam ci jàkkay muuma ginnaaw bu mu fa tabaxee jàkka ja ba noppi daaray alxuraan la fa bàyyi woon ju mag daaray alxuraan jooju màggal gu masaa am daanañ fa wàcc lii di ay kaamil soxna may munatu Mbacke bintu seexul xaddiimitim daana ko bind ay lettre ak di ko sant ñuy wàcce ay kaamil ci màggalug laylatul xadar gi lettre yu bari itam bind na ko ngir di ko jox ngërëmam lu mu am ci njàngum kaamil yi mu ko daa jàngloo ak ñeneen ak ñeneen ci yoonu murit ñu ko liggéeyloo moom cheikh ibrahima diop almasariw mi wala sëriñ ibrahima diop jat mi lii di njaboot giñ ko tuddee itam muy njabootu sëriñ ibrahima diop almasariw ñu fonkoon seen turandoo waajur wii la di sëriñ ibrahima diop jat mi ba tax na itam relation bu yaatu lañ am ñoom ñaari kër yooyu doom wa sëriñ Daawuda Jóob mi ñoom itam ku amoon yaakaar lañ ci seen sëriñ bi di sëriñ Ibrahima Jóob almasari yu ba tax na itam fu seen bët masaa xonq itam ñu daw wutali ko ku ñuy wax sëriñ Alioune Fall bokkoon ci taalibe yi dafa amoon bis feebar bu metti dal ko waaye mbokk seen xel demul woon kenn ku dut ci sëriñ Ibrahima Jóob Jatmi mi ñu bind ko lettre di ko wax ne sëriñ bi de soo gaawul sa taalibe ba dem ñu teewlu lettre bi njaboot gi bindoon ngir sëriñ Alioune Fall moomu wér jaarale ko ci sëriñam bii di sëriñ Ibrahima Jóob Jatmi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man Mbaye Fall maa lay nuyu yow sëriñ Ibrahima Diop maa lay nuyu lu bari sa taalube bi ñu naan Alioune Fall dafa feebar yónnee woon naa ca weer wee ñu weesu bëgg naa nga ñëw ñaanal ko ci nu mu gën a gaawe ndax jéggi na dayo lool moo tax man Mbaye Fall mënumaa ñëw yaa ko daan ñaanal nag yow rek la ñu ci yaakaar. ci loolu la sax nag di liggéeyal mboolem xalifay sëriñ Touba Seexul Xaddiim yi njabootuk sëriñ jóob jat mi gi nga xam ne moo ko meññ itam taxawu na leen ba ni mu toogee xalifa sëriñ Daawuda Diop Jatmi ci atum 1992 mu wéyal ndonal sëriñ daawuda jóob jat mi lii di màggal gi nga xam ne nii moom mooy màggaluk sëriñ daawuda jóob jat mi itam moo ko taxawal daa ca fàttaliku kii di ka ko jox léppam di mu dul faadal mbàkke ngir wax ne kat lu mu am ci yoon wi ginnaaw sëriñ daawuda jóob cheikh mamadul faadal mbàkke la koy sante boole koog nag di ci fàttalikuwaale waajuram wa sëriñ daawuda jóob jat mi mi ngi ko daa amal fukki fan ak benn ci weer wii di weeru tabaski ci tuubaa tawféex googu ñu gën a koo xam ci jàkkay muuma laataa muy génn àdduna ci atum 1993 nag la ko tuxal ci dëkk boobu di jat mi yokkaat ci nag yeneen ñetti fan muy fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski ngir ñu ciy fàttalikuwaale bu baax a baax sëriñ daawuda jóob jat mi màggal googu nag ñu boole waale ci bis bi nga xam ne ni moom la njabootu sëriñ cheikh jóob jat mi daa taxawu sëriñ cheikh jóob jat mi moom bis bi daa sant bu baax cheikh mamadul faadal mbàkke ak bisub sëriñ daawuda jóob moom lañ boole nag ci bisu fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski ci jat mi jóob gi sëriñ daawuda jóob sancoon ngir di ci fàttaliku sëriñ daawuda jóob ak ñooñu ma leen limal ci atu 19 1993 lañ ko taxawal ci ndigalam kon sëriñ Ibrahima Diop jat mi miñ tudde sëriñ Ibrahima Diop almasariyu mi ngi génn àdduna bisub dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1433 ci gàddaay gi dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru tabaski ci atum 1433 ci gàddaay gi dëppoog muy bisub dimanche 11 novembre l'an dimanche novembre l'an 2012 moom Cheikh Ibrahima Diop almasariyu ñu gën koo xam ci sëriñ sëriñ ibrahima jóob jat mi bi mu génnee lii di àdduna waa kër cheikh mamadul faadal mbàkke gi mu yaakaar ñoo ko taxawu cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh murtada mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ aliyun mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke ak kii di sëriñ mamor mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ mamor mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke sax wóolu la réew sëriñ ibrahima jóob almasari mi la ñu gën koo xam ci sëriñ ibrahima jóob jat mi ndax def ci kër cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ ibrahima jóob jatm mi sëriñ mammoor mbàkke mii la ci daa waxtaanal ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu cheikh dul faadal mbàkke gi ñoo ko gungee itam ba ca armeer ya ñu seedeel ko lu am solo ndax kat taalibeeb kër gëla moom sëriñ ibrahima jóob mi sëriñ asan jóob moo ko wuutu ci xilaaf ak sëriñ daawuda jóob mi ñu koy wax sëriñ asan jóob ibnu sëriñ mustapha jóob barga sëriñ naa jóob moo ko wuutu ci këru boppam suñ borom taxawu sàmm leen te aar leen te ndonal sëriñ ibrahima jóob yàgg ci seeni loxo sëriñ ibrahima jóob nag am na bis ñu koy fàttaliku ndax kat bi muy génn àdduna waxoon na ak njabootam di leen xamal ne kenn ku ne daal bis mu amaloon boppam te doon ko taxawalul boppam ngeen sàmm ko moo gën fuuf ngeen koy sosal beneen bis te fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski wii mu doon sant mu dul faadal ak waajuram wa di sëriñ daawuda jóob ak magam ja sëriñ seex jóob jat mi mi ñu koy ñaanal moom cheikh ibrahima diop almasari yu mi yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njaboot gim fi bàyyi amin